huit heures jot ba tegal El Hadj Assane Gueye euh, na ci xabaar yi ci ci gàttal El euh, ñu ngi lay nuyu di la ziar. ñu ngi lay delloo ziar bu baax sëñ Fall di ziar ñëpp ñu yeewandoo ak RFM. di jéggalu ci mbokk auditeurs yi bu baax ak euh, politiciens yi nga xam ni. Hmm. wax dëgg yàlla <laughs> yéeme na. Ah, rawatina ñi nga xam ni. Hmm. <laughs> li Fall yabale ko. waaw ba bàyyil ma noppi <laughs> waaw. bisimilah El Hadj moo tax eh, pencoo gi yéen bu ngeen politiqué ba eh, noppi man pencoo gi ma ñëw ci sujets sociaux yi. yaa wax dëgg. waaw te football bi laay waxtaanee ti. mu ngi noonu ñu débri débriefé match démb bi. yow ba njàngat nga ci def en quelques secondes. ah njàngat gi mooy euh, jaloore rek. ak euh, am yaakaar lool. Mm-hmm. yëf yi euh, gën a baax gën a am solo ci li des ci compétition bi. incha allah allah jaajëf sëñ Fall mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di sant saa su ne ci kóolëre gi kóolute gi ak RFM rajo Futur Média di leen ñaanal jàmm accident bu métti ci yoonu euh, Gossas yi booy tolloog nebe bakkan yu bari rot ca juróom-ñett lu ëpp fukk am cay gaañu ñaari wote yu mbëkkante moo jur jéey ji xibaar yi bokk na ci it lu jëm ci yaakaar gu jeex ci gisaat euh, ak i gët juróomi commando yi réer géej ab diira ngi euh, muy xibaar bu tiis tukkee ci kilifa marine nationale di chef d'état-major bi ci jamonoy xewuñ doon amal démb doon ci dikkaat ci quarante neuvième anniversaire bu marine nationale euh, xibaar yi bu dina ci bokkit politique gi ak mbootaay gi ñu kale euh, ci élection yi euh, ne woon ay candidat ca ñu gàntal seeni pexe bokk ci wote yi ca ñu jàpp ne ñoom dañ caa jalgati seen ak rawatina ci wàllu parrainage gi waraloon ñu bind bataaxal njiitu réew mi ngir ab gisee mu mel ni nangul leen lu ni mel ay xibaar ne dinañu daje kon bu ngoonee 18h ca palais de la république ñu fàttali ni googee kuréel mu ngi sàkku ñu niilal euh, tàmbaliwaat parrainage bi Abdoulaye ne ci technique bi digital geeg may sa mbay. ñu tàmbalee xibaar yi ak tiis juróom-ñetti bakkan yu rot lu ëpp fukk am gaañu ci accident bu metti bu am ci yoonu Gossas fii démb booy tolloog ne be ñaari woto yu mbëkkante jur jéey ji leeral li ndongokaa mu doon accident bu méttee métti daal dee am ci njaareem ci yoon bi jëm ca Gosaas fi yemook ak dëkk bii di nebbee mu doon ñaari oto yoo xamante ni ñoo daal dee mbëkkante jéye ji nag daal dee am ci boori 11h ci guddi lieutenant colonel Aliou Cissé mooy commandant bu groupement d'incendie et de secours numéro 2. suñu première ambulance bi mu ngi ñëw te bi mu ñëwee fekk nañ ne accident bu métti la ñaari oto ñoo tase te biñ defee point bi gis nañ ne bilan bi lourd na na si 22 victimes si ñaar juróom-ñett si ñàkk na si juróom yoo xam ne ay gaañu gaañu yu métti la na si juróom-ñett yoo xam ne blessé yu mu méttee tax nag ba intervention sapeur pompier yi taxul nag mu nekkoon lu daal dee yomb moo waraloon sax ñoom ñu daal dee mobiliser ay yu takkoo takku lieutenant colonel Aliou Cissé. si juróom-ñett yi ñu gaañu am na ñoo xam ne dañoo coincé woon ci biir loolu moo xawoon yàggal liggéey bi naam ñàkk nañ seen bakkan waaye il fallait que ñu génne premier ministre fekkoon nag mu daal jóge ci ab ngan ca Porokhane nasaraan daal dee taxaw ci barab bi nga xamante ni fa la jéey ji daal dee amee Amadou Ba njëkk a caytu lii di situation wu ñu amee ay gaañu gaañu ci bele accident laataa nag muy sàkku ci chauffeur si ngir ñuy daw ak a dal nànk. incha allah dinañu xool hôpital ba ndax euh, prise en charge bi ndax lépp jaar na yoon ni ñi nga xam ne noonu la ko gouvernement war a defee maintenant li andi accident bi xamaguñ ko di ñaan rek chauffeur yi ñuy dolli tey respecté code de la li ci des nag dinañu xaar ba jot rapport bi xam nan la demee. bile accident ak ni mu métteeg ñi ci faatu ak ñi ci amee ay gaañu gaañu enquête bu gendarmerie rekk nag moo mën a tax ñu xam ana lan moo ko waral. ndongo ka ñu koy gërëm ah, leneen new tiis di euh, ñeel njabooti juróomi commando yi réer géej ah, ab diir a ngi lay juróomi fan ci weeru janvier ak léegi euh, démb ci euh, ndaje mu jëmoon ci amal anniversaire quarante-neuvième bi yoon marine nationale bu Sénégal kilifa gi di chef d'état-major bu marine nationale xam le ni yaakaar bareetul ci gisaat leen ñoom ñooñee ne ay commando ci xew wenn wi ba tey njiitu réew mi président Sall xam na ci wàllu matuwaay ak jumtukaay jënduk beneen patrouilleur ngir marine bi ngir gën a may gët euh, géej gi Fama Dione ab cérémonie boo xamante ni yaram daw na ci dëkkal juróomi commando marin yi nga xamante ni nee ñu dañu réer juróom benn fan ak léegi foofu nag ñaanal nañu leen fa fii mu nekk nii amatuñu yaakaar gis leen ak bakkan waaye moo tax jamono ji suñu xel dem ci ñoom ñu bëgg ñaanal leen marine nationale ñu màggal ko 23 janvier bi nag mooy bu njëkk cérémonie bi ab njiiti réew daal di kaa jiite soldat yi ne ci géej gi daal di cee békk contre amiral Abdou Sène moo chef d'état-major major marine nationale. vous pouvez donc imaginer notre émotion. waxtu wi suñu xol fees na waaye am nañu mbégte sol suñu tenu yi gën a rafet taxawal suñuy junjung ak li nga xam ne yëpp la ngir teertu la. bëccëg bile ñu daal di ko saisir daal di cee ngénte patrouilleur de haute mer muy la ñaani te Sénégal jënd ko bu yàggul dara président Macky Sall daal di xamle ni sax bu yàggul it daañu am ab bâtiment de soutien logistique pour engins débarquement infanterie ak char beneen bi patrouilleur bu ñu fas yéene tuddee le Kayoor dina fi ñëw bu yàggul dara. le équipement bu marine bi nga xam ne ñu ngi ko boole ci programme vingt vingt cinq moo waral ñu am tey jii lii ñu naan ay jumtuwaay jëmale ko ci géej gi ba waral ñu am bile patrouilleur haute mer te ci lu yàggul dara boobu jumtuwaay dinañ ko jot loole yëpp di wane jéego yi nga xam ne ne état bi mu ngi koy def jëmale ko ci wàllum kaaraange ci géej gi. Amen. 23 janvier euh, ñuy màggal commandement bu sénégalais bu njëkk unité marine bu premier bataillon sénégalais bu njëkk nag bi nga xamante ni moo nekk commandant armée de mer mooy vice amiral fay Gassama. jërëjëf soxna Fama Dione RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróom-ñaari minutes. ak RFM kumpa jeex na. waajaluma. Euh, wootey palak njiitu réew ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février 2024 ci Sénégal euh, ci euh, fànn woowe la ay aji politique nekkoon ni candidat wala boog bëggoon ko nekk ca mujjuta antu ndax wàllu parrainage gi seen ak mbootaay di collectif war a daje ci xibaar bu ngoonee ak njiitu réew mi président Macky Sall ñeent fukk ak ñeent ci la ñu tonn ne ay kilifa 18 la ndaje mi lu ñu war a waxtaane am na ci ñu njort wàllum toxal élection yeeg yu ni mel lu ci mën di am ginnaaw ndaje mi la ko mun a xam waaye it euh, soxna Aminata Touré bokk ci euh, ñooñee ne ay candidat taxawoon ngir bokk ci ñu gàntal ko euh, bokk ci googu collectif àndul ci gise beeg ndaje mi teel na ko xamle moom soxna Aminata Touré dafay lank mu ne lépp lu xeetoog ay manœuvre maanaam baara yëgoo yu seen borom jubluwul lu may bàyyeen ci bopp nguur Sénégal président Sall parti unité ak rassemblement euh, du PUR ñoom àndul benn yoon ci toxal ñeel élection yi ci seen candidat di Alioune Mamadou Dia xam la ne ni président de la république mooy responsable bu njëkk ci lépp luy ak wàccoo calendrier électoral fii ci réew mi lu jëm ci wàllu dem ci yooyu élection nag ak lëngoo dàqunu xalaatu dem ci coalition ñu ngi koy waajal ak parti yu ràññeeku ci réew mi mu ne Alioune Mamadou Dia doon àddoo euh, ci kaw tournée bu mu doon amal ci Grand Médine fii ci Ndakaaru ñu teewlu ko ak Abdoulaye Ndour élection bi gisuma lu tax ñu war ko ràndal incha allah ñun au niveau du PUR li ñu gëm mooy dañu war a respecter état de droit ci réew mi dañu war a respecter le calendrier républicain mooy élection bi dañ ko war a tenir le vingt cinq février ki sénégale yi wóolu mais votel ko mu gagné réew mi dellu ci liggéey parce que liggéey réew mi kenn liggéeyatu fi 2019 ba léegi réew mi liggéeyuñu ñu ngi ci troisième mandat ñu ngi ci ay problème justice ñu ngi ci ay problème mu euh, report ay élection ñu ngi ci problème mu parrainage mais kañ la ñuy liggéey sunu réew ñu ngi liggéey ci coalition di wax ni déjà am nañu mouvement yu baree baree bari ci biir réew mi euh, xam ne ñëw nañu pour ànd ak ñun ñu liggéey euh, muy fii ci Ndakaaru muy à l'intérieur du pays depuis pratiquement un mois laay wax wala lu ko ëpp sax je reçois beaucoup de monde et di wax ni aussi ci parti politique yi ñu ngi ci waxtaan ak leader politique yu mag a mag a mag ci réew mi yoo xam ne dañu gëm le projet ko porte le PUR xam nga PUR ku ko xam xam ne doxuñu ci ay caaxaan li leen yitteel mooy askan wi li leen yitteel mooy defar réew mi donc ñi nga xam ne am nañ ràññee ak seetlu xam nañ ne euh, du rek ñëw pour sa intérêt wu bopp donc euh, loolu moom ci la ñu nekk ci fan yi di ñëw lañ ko gën a tasaare nit ñi xam ñan exactement ñooy ànd ak ñun di liggéey. Alioune euh, Mamadou Dia mooy mbër bu parti PUR ci élection yi nu dëgmal jëm ci palak njiitu réew. ki falu booba ak léegi ab diir ci bopp Sénégal président Macky Sall moom mu ngi woon ci xew ñu jagleel euh, lii di aw yorinam fukki at ak ñaara ngile euh, ci bopp réew mi euh, kuréel gi di club société démocratique perspective doon ko amal démb war ko wéyal ba tey jii ca CICAD centre international de conférence Abdou Diouf bu Diamniadio àdduna jëme ci ñi naan ci wàllu kon bilang bu ñu koy defal da am bilang naam bu ay gët mën a tegu wàllu jumtukaay ak infrastructure yi ca la ak it bilang bu ay gët mënut a tegu immatériel moom nag. président Sall jàppew ko waxi dara yu amul solo la ndax bilan immatériel amul réew mi démocratie mu ne moo tax ñenn ñi sax am sañ-sañu doxalee nee na ni daa fekk kay ne la mu taxaw parce que yéene doxee nguuram rek mooy képp ku bëgg na saxal réew mi moom jàmm doo ko mës a dégg euh, ci euh, fileeg muy ne ci bopp réew mi président Macky Sall ñu teewlu ko ak Abdou Diouf Diagne. donc sur la ma dégg ñu naan bilan bi baax na waaye nag bilan immatériel bi war nañ man xam ma luy loolu wax leen lu waral ngeen di wax loolu ñun boobaa dinañ ci waxtaan bu fekkee wàllu àq ak yelleefu doomu aadama moo tax ngeen di wax kuréel yi nga xam ne ñoo ci war a wax ñu ngi ciy wax te ñu ngi ñuy note at mu jot fii amul li ñuy duppee prisonnier politique bu ko fi kenn wax bu ñuy jaxase benn yoon xelu nit ñi wax ji yépp mooy Sénégal réewum démocratie la loolu képp moo fi nekk xam ngeen ne lii xew fii faneen fu mu xewoon kenn waxatu ko ñu yaakaar ne président moo naan juge def leen ñu def bañ leen def ñu bañ a def loolu amul gis ngeen ko lu yàggatul dara coow yi nga xam ne moom moo am ñeel conseil constitutionnel cour d'appel ñun juge yi jox nañ leen sax lu raw wàllu indépendance kon lan mooy bilan immatériel bi nga xam ne moom ngeen di wax li ma mën a wax daal mooy ñi nga xam ne ñu fi bëgg indi fitna moom du ñu nekk benn yoon ci jàmm tant man maa ngi ci biir réew mi te loolu mooy wareefu képp koo xam ne dénk nañ la nguur maa ngi leen koy wax tant maa ngi ci moom moo tax ñu daal di ko fi teg waree fam mooy fexe ba askan wi di am kaaraange saa su nekk. à sa mission d'assurer la paix et la sécurité de citoyens. Si on est fâché pour moi à cause de ça, je suis désolé, mais ça c'est mon travail. njiit réew mi président Macky Sall ca Diamniadio euh, wàllu xibaar bokk na ca euh, taxawaay gi ferrailleurs yi am boobaak léegi ne cib gréew di ñaawlu wàññi teg njëgub tonu ferraille bi. Euh, jëlee ko cent quatre vingt dix mille yóbbu cent soixante quinze mille euh, mbootaayu ko industriel di borom usines yi nag ñoom ne loole ak mbootaay bu yore wàllu njëg yi di comité de prix. moo ni doxalee ci li ko waral bokk na ci njëgu fer bi ci marché bi ak it euh, wujjee gu tukkee ci anam yu dëppwul ak yoon ci béton importé bi muy concurrence déloyale kenn ci ñoom industriels yi Talal Kazum ñu teew lu ko ak Abdourahmane Diallo. biñ demee ba toog ministère convoqué nañ foofu ñetti réunion ba toog biñ toogee saa biñ demee foofu dinañ dañuy changer sujet yi du nangu di dem ci privé di wàcc en même temps ñun usines yi dañuy am suñuy charge dañuy am suñuy courant dañuy am suñuy employés yu ñuy war a fay ak exo yu ñu xam ne dafa nekkoon ci dëkk bi fer à béton bi di dugg ci biir dëkk bi ñuy jaay ci prix yoo xam ne comme li ñu koy waxee ci tubaab ils ont prix donc ñun mënatuñu jënd ferraille bu cher di ko produire ba pare nekkaat si di bugg a jaay parce que dañu dem ba benn instant suñu produit mënatuñ ko jaay ndax dafa nekk foofu prix marché bi yëpp a daanu te ñun mënuñu dem ba daaneel prix yi. est-ce tey grève bu ferrailleurs yi am na li nga xam ne daf ko gàllankoor yéen ci seen liggéey bi moom dafa dafa impacté impact bi mu am la suñu matière première bu ñu jotewul matière première tey duñu mën a produire donc depuis ñoom seen grève yi dañu am ay difficulté di jot suñu matière première est-ce que mën nañu xaarandi ab waxtaan diggante industriel yi nga xam ni loolu ngeen doon ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ferrailleur yu nekk ci grève bi waxtaan bi tamit dafa gën a neex mooy boo toogee waxtaanee ak nit boo waxtaanee ak moom tey suba boo naree waxtaanaat ak moom fekk même nit ki ngay waxtaan mais tey da ngay waxtaan ak nit suba yeneen nit ñëwaat encore toog ak yow waxtaan moo taxit waxtaan bi da ngay dem benn instant yoo xam ne blocage am. Talal Kazoum bokk ci industriel yëngu ci wàllu ferraille bi ak mbokk ferrailleurs yi ne ci grève di ñaawlu rek wàññi te njëgu ferraille bi ak yeneen mu doon ñëw moom ay leeral ci li waral boobu réero leneen ci xibaar ak RFM réero ci wàllu kër docteur ca Goudiri euh, diggante chef district sanitaire diwaan ga ak personnel di ñe euh, yëngu ci wàllum paj mi foofe <coughs> lanu euh, di ñaawlu nag ginnaaw grève bu ñu nekkoon ñetti fan a ngile bokk na ci it fan yi li gën a daal di kon xajamal diggante bi kenn ci seen i bu ñu daal di arrêté muy infirmier chef de

dellusiwaat si système bi dem liggéeyi ñu affecté ko ci région Tamba ñu réclamoo départ médecin bi. li muy def tegu ko fenn. tegu ko fenn agent de santé rek ngay dem ci àll bi fekk ko fa mu nekk fa di tumuranke amul vie de famille amul dara kon ñun fu mu ñu mënti affecté dañ ko dem bañu ñu affecté ñu mais nañ ko jaarale ci yoon affectation arbitraire yooyu nag lañ bëgg médecin bi mu arrêté ko waxuñu nag. waxuñu nag mu arrêté ci Goudiry mais na arrêté ci région bi la wax sax ci boppam médecin yi képp kuy defati afectation na ko xoolaat bu baax waaye fuñ ñu affecté dañ dem mais nañ ko teg ci ay base ay critères leer yoo xamante ni kat lii moo tax ñu accès euh, ñu affecté ki li nga xamante ni nag mooy plan koy continuer 72 heures yi ñetti fan yi danañ ko dem muy lundi talaata ak àllarba bi dañuy dem pare wuñu nag ndax bu ñu defee ba pare danañ jàngat xool lan lañ ci am ak lan lañ ci gis ndax li ñuy xeex dinañ ko saafara wala ko saafara suñ ko saafarawul tamit dañuy gën a yokkaat rek demaat fexe nañ jokkoo ak euh, médecin bi ci boppam chef euh, district euh, bu Goudiri waaye mujjuta antu yenn ci xibaar ne dafa tukki ci gàttal nekkul ci diwaan ga jamono yi. Côte d'Ivoire la ñu wutali ci sport geek kan ba fay xew jamono yi ak. Sode Thiam. da ngeen bëgg a fekkee ji ba ca Côte d'Ivoire groupe Kalimo Consulting dina leen yóbbu héberger leen ak it di leen génnee gën leen a xamee dëkk ba boo ci bëggee am lu gën a leer wooteel ci 77 240 37 44 77 240 37 44. Primo Consulting Group moo leen ni may seen journal de la CAN. dalee na jàmm ci seen journal de la CAN troisième et dernière journée phase de poule yi nag dañ ko wéyee niki àllarba gi ak nami bi nga xamante ni moo nar a yi Mali ngir xëccoog moom première place poule E bi bu juróomi waxtu ci ngoon jotee nag lay doon ci waxtu woowee. Afrique du Sud itam dina jàkkaarloo ak Tunisie même situation poule E boobu nañu nemmeeku ci groupe F bi ak Zambie mi nga xamante ni moo nar a jàkkaarloo ak Maroc bu vingt h jotee ci waxtu woowee itam Tanzanie nara def kem kattanam ba jéem a xool nu muy daane RDC ngir mën a espérer qualifié ni kiy démb nag champion d'Afrique en titre bi daal dinay dëggalaat boppam gannaaw ba mu amee ñetteelu ndamam ci phase de poule yi Sénégal dafa daal di daan Guinée ñaari bal ci dara Pape Malick Diaw di dellu siwaat di dellu siwaat ca na ba tëddee woon Sène ak homme du match bi di Abdoulaye Seck. bile ambiance moo fësoon fii ci stade Charles Konan Banny laataa ñuy joxe li nga xam ne moo di coup d'envoi bile ci diggante Sénégal ak Guinée gannaaw hymne yi le ñu daal di joxe li nga xam ne moom moo di coup d'envoi bi ci saa si rythme bi daal di tàmbali ci bile jogante ñi koy njëkk wane di Nampalys Mendy ak Naby Keita daal jote mi-temps bu njëkk bi du daal di bëri li nga xam ni moom moo di ay occasion ba 46e minute sax li nga xam ni moo di beneen coow amati ci diggante ñaari équipes yi mi-temps waaye ba ñu dellu siwee ca 61e minute de jeu ki nga xam ni moom moo di Abdoulaye Seck daal di amal bii bu njëkk pour Sénégal ci noonu ñuy wéyal li nga xam ne moom moo di jogante bi intensité bi di gën a yokk ci jeexitalu match bi kii di Eliman Ndiaye moom mi jóge ci banc bi sax daal di dugal ñaareelu biwu Sénégal ci noonu coppite dootu ci amati match bi foofii lay daal di yem ñaari bal ci dara Cameroun ca boobee jamono moom jiital ki nga xam ne ni moom moo di ñetti bal ci ñaar kii di Gambie daal di mujj am ndam ci kawam kon Sénégal ak bile daal di des ci li nga xam ni moom moo di bopp classement wu groupe C boobule loolu jural ak mbégte ki nga xam ne moo di Abdoulaye Seck moom mi amal biom bu njëkk ci kan kontaan naa damay ñaan yàlla mu continuer ay ndamit ndamit ndam topp fii ci lépp lu ma gis lu nekk dama si gis suñu borom yàq ma sama dara te ni ma ko waxee noonu laa nañ li may ñaan yàlla mu gën a góob bi mu coach bi soxlaa mu joué mu ma soxla maximum waaye nag moom défenseur sénégalais bi de mi ngi dellu si wàcc ci compétition bi daal di xam ne ni faaw ñu wàccee seen bopp ndax fi mu nekk nii defaguñu dara ci bile kan donte génn nañ premier waaye dara xewagul moom mi nga xam ne ni sax ay coéquipier am dañ ko fekk ci conférence de presse bi daal di koy félicité muy wane rek ambiance bu baax bi nga xamee ne ma ngay am ci groupe bi groupe boo xamee ne dina des kon fii ci Yamoussoukro ngir amal li nga xamee ne moom moo di huitième de finale am Sénégal moo di équipe bu nga xamante ni moom képp moo daal di def carton plein ci phase de poule yi loolee nag di lu neex loolu ka di tàggat Aliou Cissé di ànd ak dal ba léegi. mën nañoo wax ne ne match bu xawoon a jaxasoo la jéem nañoo def euh, football bi ci na mu waree waaye match seere euh, xol yi jóg na fitna gi bari woon na loolu boo xoolee sax euh, ci doxalin wi ci ñaareelu mi-temps bi ci la ñu doxee seen kaw wuti leen ca ca noonee sax la dugalee bit bu njëkk bi ci ñaareelu mi yi boo xoolee tamit changement yi ku ci mel ne Idrissa Gana ci la ñu duggee ngir gën a dëgëral li nga xam ne ne moom la ñu jot a am maanaam résultat bi maintenir ko ñi ngi ndokkeel euh, joueur yëpp nag ndax aw équipe la bu ñu amee ndam ñëpp ko bokk ñi doon wax ne ne foofee ndax euh, wane nañ bu baax a baax li ñu mëne ci wàllum dugal ndax boo xoolee kaan bii rek dugal nañ juróom-ñetti but te loolee day wane ne rek euh, collectif bi ñu am dafa dëgër fi mu toll nii nag dese nañu yeneen max yoo xam ne ne ñi ngi ci te dinañ ci bay suñu waar bu baax a baax

nekk ab mbetteel waaye nag la jàpp moom moo di qualification bi ëpp solo. c'est un match euh, bu tàngoon la aw der bi law dox ci ñaari réew yi boo gisoon bëri woon euh, fitna loolu euh, ñenn ñi sax gis nañ ne dañoo meroon moo ne de ñaari équipe yëpp qualifié woon nañ ba noppi ñaaw na ci gisin wi waaye mujjantal gi ñoom ñoo ñu dóor ñaari bal ci dara tey jii jàng nañ lu bëri ci bile match bi ñu jëlee bit bu njëkk bi ci benn coup franc lañ ko def ñu gaawantu muusu loolu dugal ko ñu nit ñu bëggoon a dellu si waaye ca la ñu jëlee ñaareelu bii ba bu ñu woyoon noonu sax teb ju jëloon ñetteel ba ndax dañoo bëggoon gañe bi le max fi mu toll nii nag euh, bay wéy na mbuus ñu concentré wu rek ci huitième de finale yi dinañ dellu hôtel ba ndax dañoo war a dem ca Abidjan foofu la ñu war a wéyalee compétition bi bu ñu gañe woon tamit euh, dara du xew naam sax euh, am na ñoo xam ne ne mer nañu waaye tamit loolooy football ñi nga xam ne nag ñooy dégg ma ci ñeenti fan yi nga xam ne ne dinañ ko nekk man daal li ma gis mooy wëyal lëgëy wi ngir wuti qualification bi nga xam ne ne boobee ba tey ñu ngi koy yootu te jotaguñ ci. Euh, je sais pas combien Cameroun moom it daal dinay amal jongante gu mucc ayib gannaaw ba mu daanee Gambie ñetti bal ci ñaar gayndek indomptable yi nag ca ñaareelu place bi la ñu daal di mujjee am seen ticket itam bu leen di yóbbu ci huitième de finale yi Gambie gannaaw bañ ko éliminé nag ka leen di tàggat di Tom Saintfiet dafa daal di annoncé démission ni dafay tekki ndombal tànkam ci poule D bi Angola moom moon daal di mujjee ci place bu njëkk bi gannaaw ba mu daanee Burkina Faso Dana Algérie benn bal ci benn loolee nag di lu yéeme ngir waa Algérie am na sax yenn ci ay médias yuy wax ni kaleen di tàggat di jameel Jamel yi wax na joueuram yi ni day démissionné laataa ñu ci am lu gën a leer ñëw daal di addu jëmale ci yenn ci affiche yu de finale yi Nigéria war a jàkkaarloo ak Cameroun Guinée équatoriale di am Guinée Cap-Vert Mauritanie waaye nag Sénégal Angola Égypte ak Burkina Faso ñoom faw ñu xaar jogante yi am ci àllarba yi ngir ku ci nekk mën yooyu le kon. da ngeen bëgg a fekkee ji kan ba ca Côte d'Ivoire groupe Kalimo Consulting dina leen yóbbu héberger leen ak it gi leen génnee gën leen a xamee dëkk ba boo ci bëggee am lu gën a leer wooteel ci 77 240 37 44 77 240 37 44. Kalimo Consulting Group moo leen doon may seen journal de la CAN. Aliou Ba <laughs> pël sàmm la xam-xamul football ñu koy gërëm Aliou ci annonce boobe waaye gërëm euh, ci lu ko jiitu sunu ndaw yi ca Côte d'Ivoire euh, Sode Thiam Youssouf Bodian euh, Pape Malick Diaw Ablaye Diop ci technique beeg may sëdd leen xelal ngeen ba ba ab diir soog a wattu ji ci jàllo yi mbokk jàllo ak bareeg yooyu sinon dabalaa lañ leen di defal 8h24. pour RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñu yegg seeg yéen ci chronique culture beeg Anna Rocha. maa leen di nuyu mbokk yi culture bi mu ngi yëngu bu baax a baax ci Yeumbeul Nord acteurs culturels yi ñu ngi amal ay initiative yu bëri. bu ci mujj di festival Selebe yoon ne woon occasion itam ngir acteur culturel yooyu lee ñu daal di euh, yëkkati kàddu jëmale ci euh, kilifa yi nekk ci euh, mairie bi ndax jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jonkonteel ci wàllu financement foofe ñu déglu ci Ati Diallo ci micro Aminata Ba amoon yu bëri yu recommandation yu acteurs culturels defoon ñu jëbal ko mairie bi et je pense que depuis benn moment aussi ñoom ñu ngi ciy sukkandiku pour xool nan la ñu mën a en tout cas euh, fexe nu culture mun a jëmee ci kanam loolu nag dafay laaj nga jël en compte lu mel ni financement euh, acteurs yi euh, nan lañ leen di mën a accompagner par des financements infrastructure culturelle yi buñ ko réfectionné buñ ko defaree ba pare ñu jébbal ko teg ko ci loxol acteurs culturels yi bokk na aussi tamit si nan la ñu mën a jokkalanteeg la mairie ba war ci mën a waxtaan ba nga xam te li ñuy def dafay mën a fësal turu yëmbal noor ci kanam kanam jox ko maanaam euh, ab nataal bu rafet et donc je pense que loolu yëpp ñu ngi ciy góorgóorlu te jàpp nañ ne que ne du yàgg dara dinañ ko mën a gis ñu fësal ko ku ci nekk am sa wàll xam liñ ci def mais aussi surtout ñun ñëpp ñu bokk liggéey jëmale kanam lépp lu culture au niveau de Yeumbeul Nord. maire commune bi àdduna ci euh, itam nee na pare na ngir amal ay euh, waxtaan ak acteurs culturels yooyu le ngir ñu gën a mën a gunge secteur de la culture bi ca Yeumbeul Babacar Ndaw di xam xamle ni am na ay infrastructures yu bëri yoo xam ne ñu ngi koy defaraat wala ñu ngi koy tabax. tax ñu déglu ko. liñ ciy njëkk a démarré mooy wàllu infrastructure wax nañu ko amoon na leen solo il faut ñu taxaw ci ndax yëmbal amul salle de spectacle benn infrastructure moo tax CEDES bii ñu fi euh, nañ ci ñu ciy préparé développement pour réfectionner ba mu baax ba mu am fii aussi ngi koy defaraat ci biir am na aménagement xam ne dina a def ay salle euh, ci biir am na benn centre socioculturel bu mag bu ñu fa war a defar boo xam dinañu coûter 450 euh, millions. mooy ñeenti téeméeri millions ak juróom fukk yoo xam ne ay comédie yooyu yëpp pour euh, booster l'art ak yeneen yeneen yi ñuy jéem a fexe ba acteur culturel am fu ñu mën a toog di fa mën a mën a def seen art mais li loolu tamit bokk na ma bëgg gën a urgent bi gën urgent aussi mooy ñu am un fonds boo xam ne dañ koy dajee euh, le monde culturel ce qu'on appelle en fonds dédié aux initiatives culturelles ñu accompagner artistes yi ñi nga xam ne amuñu moyen pour produire wala def yenn yi ñu def benn fonds boo xam ne loolu tamit ñu ngi koy waxtaan gis nañu ko dinañ fexe ko ci budget yi ba mën a accompagner la ak leneen nga xam daal yëpp loo xam ne si mën na accompagner le monde culturel ak les initiatives culturelles incha allah nañ ci waxtaan ak ñoom ànd ci ñoom accompagner leen. Euh, jaajëfal Aminata Ba mi taataan yi lay kaddu mbokk yi ci seen chronique culture di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah ci yeneen i xibaar ñeel aada ci RFM CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal DSL ak seen marque bi di Dekakila direction de la santé mère enfant sumari.com Kenkeyri le grand jaxaay ñoo ne ni may li ci yéenekaay yi yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf juróom-ñetti doomi aadama ñoo faatu ci accident ci yoonu Poroxaan wi l'observateur moo joxe xibaar bi yéenekaay bi mi ngi ñuy wax ne ci waa Seneweb ci la ñu ko jële démb ci talaata ji ay boori onze heures ci guddi ci la accident bi am mi ngi amee ca fay tolloog benn wilaas bu ñu naan nebbe nekk ca njaarim benn bus tata moom bëkkante ak benn wata transport juróom-ñetti bakkan rot ci saa si am lu toll ci fukki nit ak ñeent yu ci jëlee gaañu gaañu ba ñu évacué leen ci l'hôpital Hendrik Luque bu Jurbel ci yoonu Poroxaan yu l'Observateur ne nañu fa la tiisoo amee màggalu Poroxaan gi ñuy hommage bu fort te neex bi kilifa gi di sëriñ Moustapha Lakaram def jëmee ko ci soxna Baali Mbàkke Muntaxa yéenekaay bi nañu bi mu jëlee kàddu gi di wax ci kanamu kilifa yu bari fa la waxee moom sëriñ Moustapha Lakaram ne wareef la ci ñu koy defee at mu nekk waaye wareef la ñu féddali suñu soutien ak suñu hommage kii di soxna Baali Mbàkke Muntaxa ci taxawaay bu am solo bi mu dëkkee ci yoon wi sëriñ Moustapha Lakaram ne kàdduy ngërëm yi ci sëriñ Muntaxa Mbàkke Bachir ci la njëkke ndax toog na maag moom mu yëkkati ay kàdduy ngërëm ak cant jëmee soxna Baali wax ji mi ngi ci biir l'observateur ñu des ak l'observateur ba tey mi ngi ñuy xibaar ne président Macky Sall dana gisee tey ji ak candidat yi bëggoon bokk ci wote présidentielle 2024 yi gis ne mbir mi ngi xeeñ ay mathématiques ci wàllu politique journal bi teg ci di laaj ndax nekk dinas ay pexe ngir reporter wote présidentielle liggéeykat kii di Aminata Touré mi ngi ñuy xamale moom nee na nañ ko ci génne bu ko kenn boole ci lenn loo xam ne buñ ko defee day tax Macky Sall mën a des ci bopp réew mi anki dina kay bind ne candidat yi ñu rëkkale ñoo ko jëm ca palais ba tey ji ci ngoon ci la ñuy amab seen digg ak président Macky Sall ak ñi mu àndal mu di coalition Mimi 2024 anki dina kay mi ngi ñuy wax ne ñoom wax nañu ne bu leen ca kenn boole demuñu ñu dem ci xët mu njëkk journalisé fekkaat fa xibaar bi li mu bind mooy Macky Sall dina jël audience recalée yi tey ji ci ngoon bu 6 heures jotee délégation bu fukki nit ak juróom ñoo war daje ji ak njiitu réew Macky ca délégation ba journal bi nee nañu ràññe nañu ci Cheikh Tidiane Dièye ak docteur Gadio ñi ci dul bokk Les Échos nee nañu ràññe nañu ci Bougane Gueye Dany docteur Abdourahmane ak Abdou Mbacké Bara Dolly kii reporté élection yi moom bu ko kenn jëme kaw ndax duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg ñu nangoo ci xët mu njëkk suur soit ay kàddu yu mu nangoo ci Abdoulaye Diouf Sarr gaayam yi mu bokkal langu politique di waa benn Bokk Yaakaar ñoom la Diouf Sarr xëy di waxal Diouf Sarr nee na jot na ci ñu dakkal réunion yi wàcc ci terrain bi muy la may dem daje ji ak askan wi askan wu Sénégal bég nañu ci seen gaynde ya kan ba ca Côte d'Ivoire record yéene kay mel ni ku naan ñu ñooyey ndax guney Aliou Cissé yi jaloore ju mag la ñu defagum ci Coupe d'Afrique daje nañu démb ak Syli national bu Guinée gagné ko ñaari bal ci dara muy ñetti max ñetti victoire ci ñoom Walf Quotidien nañu li ñu naan carton plein moom la Lions yi def fépp la ñu fàtt mayiwuñu dara Le xëy leen tuddee les rois de Yamoussoukro journal bi mi ngi ñuy waxit ne guléet Sénégal dugg ci Coupe d'Afrique gagné match de poulam yëpp yéenekaay bi mi ngi ñuy waxit ne ginnaaw bi ñu jëlee pied ci seen poule tey ji ci la xam kan la am ci huitième de finale yi Aliou Cissé ci xët mu njëkk Sud Quotidien mu fay wax mbégte mu mu am ci li goneem yi na leen xat mujj naa CCPS